bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd ñu nekk di leen fàttali ndigal loo xam ne daairatu muqaddamatul xidma bi yore jumaayu si Ahmad Bamba yi ak daairatu rawdu rayahin ndigal lu ñu amoon bu yàgg ci dundal guddik mawlidu nabi alayhi salaam fii ci jumaa ju mag gi ñu leen koy fàttali ginnaaw bu ñu jotaatee ndigal Cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahullahu taala war a yeesal ko wax ne nañ ko defee nañ ko daan defee war ko defee ci biir jumaa ji ci na ko sëriñ mag bi daan dundalee radiyallahu taala anhu santoon njaboot gi ñu ko dundal noonu muy guddi gi nga xam ne moo gën a màgg ci guddi yi dégg nañ léegi lii sëriñ Habib wax tanzimuhu mawliduhu muazzamu mubaarakum muxtaramu tanzimuhu yan xatimu ala dawi taqaddumi sëriñ bi neenam woote gàmm war na képp ku jiite mbooloo wax ne képp koo def te rek ko ci sunna tanzimuhu bi sunnati yaquudna lil jannati danañu wommat yóbbuñu aljanna waxit ne bi hisdiyaadul minnati day tax see xewal yokku waaye nag li muxlisin muazim yi kon ñuy fàttali ñaari baat yu am solo na ko ixlaas lal waaye nañ ñëw rek ngeen màggal si yonent bi kon ñu ngi woo ñëpp di fàttali ñëpp loolu di ñaan yàlla ñu ak ca jàmm dundal ko ni ko sëriñ bi diglee woon day te ngërëmul sunu borom waaye am ci mbégum sëriñ bi ñu ngi ciy woo ñëpp ci ndigalul kilifa yi nga xam ne ñoo jiitee muxaddamatul xidma ak rawdu rayaxiin ginnaaw bu leen kilifa gu mag gi joxee ndigal loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi dellu si di leen nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo ci jumaay Tuubaa ji tëdd ji di leen fàttali bis bu am solo boo xam ne eh, ndigal li mu ngi tuxewoon ci Cheikh Saliou Mbacké jamonoy 1998 ñuy dundal gàmmu ci daairatu muxaddamatul xidma ñu woy di ko dundal ba Cheikh Seydil Muxtaar ñëw Euh, woonu woo daay daayira Rawdu Rahiim boole ñu lenn ndigal ñu di ko dundalee ci biir gam ci biir jumaay Tuubaa ji wax ñu it ni nga xam ne noonu lañ koy dundalee wax ñu ne noonu la ko Sëriñ Tuubaa daan dundalee te loola wax na ne bu ñu ñëwee nañu jàng fukki kaamil ak ñaar yoo xam ne kaamil bu nekk dañ koy ubbi tëj ko xatmu ko euh, bu ñu noppee ñu jàng ci ñi nga xam ne dañuy durus diwaanu salawaat jàng itam xaside yi nga xam ne mooy rabian yaat yi ak yu ni demee diwaanul am daa suñu noppee xuraan euh, ya suñu noppee ñu def ñetti kuréel kuréel boo xam ne mawaahibu la ak kuréel boo xam ne muqaddamaat la ak kuréel boo xam ne jasbul xulóob la benn bu nekk yëkkati fukki bayit ak ñaar ànd ak koo xam ne day jàng albarzan jiyu noonu la ko seex sidil muxtaar waxe woon ci kàddoom gu tedd ga fekkee na ko itam lu mat ñeenti at yoo xam ne at mu jot daf koy ànd ak ñun euh, joxoon ñu ci digal ndigal waxoon ne nañ koy jàng di ko bu ñu noppee ñu def li ko jum ñëpp barkeeloo ko loolu itam ànd na ko ak ñun ay at door fee bàyyi ko ndigal loole nag moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha wóyal indiwaat ko ci daairatu muqaddamatul xidma ak daairatu rawdu rayahin ñu war koo dundal fii ci jumaay Tuubaa ji ni nga xam ne noonu lañ ko daan dundale ñu di ci woo nag bokki jullit yëpp di ci woo bokki taalibe yëpp di soññ itam ci ñu bàyyi xel ci fi melaw jamono ak fi mu toll ndax sëriñ bi wax na ne nañ ko def waaye nañu respecté nag li ñuy tuddee mesure barrière yi te mooy kuy ñëw na bàyyi xel fi jamono toll nañu takk masque te bu ñu ñëwee ci bunt bi itam nañu raxasoo wala ñu diwoo sel bu ñu toogee itam ñu soree la jataay yi ngir mën koo dundal ci jàmm am ci ndam lu mel ne li nga xam ne moom la ñu am ci màggalu Tuubaa gi ñu weesu loolu mooy li xam ne moom la sëriñ bi digle te soññee ci it nag wax ne képp ku ñëw na sàmmoonteeg loolu ñuy soññewaat nag ci la nga xam ne moom la daan soññee rek mooy nit ñi itam ñu sàmmoonteeg cet gi ci barab bi parce que nit ñi yéene nag incha allahu programme bi nii lay tëddee li tàmbalee 10 heures ba 11 heures sëriñ Bolle Mbay dana fi jàng xasiida onze heures ba minuit danañu def waxtaan wu am solo woo xam ne dañu ci génne euh, jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mbindum ci biir mbindum Serigne Touba waxtaan wi itam ki koy def moo di Serigne Abdoul Khadir Bousso euh, buñ ca noppee nag ci la ñuy tàmbali nag euh, li nga xam ne mooy njàngum yëkkati mi bu minuit jotee njàngum yëkkati mi nag ni ñu ko waxee woon léegi rek noonu lay demee ñetti kuréel lay doon di kuréelu jës bu mawaahibu ak bu jës bu ak muqaddamaat ak ki nga xam ne mooy mooy jàng barsanji yu barsanji yu bi itam sëriñ ahmadul badawi yi ak sëriñ afiya bu so imam ak sëriñ habibullahi jatra ñoo koy jàng ñoom ñett ba bët set loolu nag day àndaale ak ndur njàngum durus mi nga xam ne moom la ñu waxoon léegi kon nag kenn ku nekk rek fu ci war a féete boo te man ko muy góor muy jigéen ñi ngi sàkku daal kenn baña a toog loxoy neen na kenn ku nekk nekk ci dara loo xam ne du koy amal njëriñ lay doon ñi nekk fii ci li nga xam ne moo wër penc mi ñëpp nañu bàyyi xel ne bis la boo xam ne xéewal yi day bari xéewal yi nag ku ko andi te jëm si ci barab bii am na ñoo xam ne ñoo koy dajale di ko séddale na ko teg ci seen loxo ñu seddale ko moo gën a euh, nosu li nga ñi ñu jox ay xéewal itam tem nekk ci ay defukaay lu mel ne ay perméable wala ay butéel wala lu mën a doon buñ ca noppee nañ ko dajale am na ay defukaay yu mbarit ñu def ko ca buñu ñu xëyee danañu buubaat barab bi ba mu set wàcc ñu delloo ko waaye sa taamuwuñu kenn koo xam ne day ñëw di séddale boppam wala mu di fi wala mu di ay ndox am na it barab yoo xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi rek jigéen ñi am nañ barab bu ñuy toog di fa jànge alquran ak euh, diwaan yooyu ni nga xam ne neen la góor ñi amee barab yoo xam ne dañ fay toog di fa jàng alquran ak diwaan yooyu nga xam ne moom lañ ci doon ci tàmbali bi képp mën a jàng na dem jege ji ñooñu tey jàng ku munta jàng na nga toog yor sa kurus di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba bët set ànd ak nag di déglu njàng bi di déglu njàng mi te am na ay barab yoo xam ne bu fa tolloo dañoo war di awu awu boobu itam ci biir gàmmu gi la bokk képp ku ku dégg mbooloo mu yëkkati loo di aw nanga nga ànd ci aw boobee euh, danañu séddale ay kayit yoo xam ne danañu ci bind baat yi nga xam ne moom la ñuy jàng moom la ñuy awoo njàng mi kon nag ñu ngi ci woo bokki jullit yëpp di ci woo bokki taalibe yëpp di sàkku ci ñoom ñu sàmmoonteeg ndigal yi nga xam ne seriñ bi joxe na ko euh, bu ñu ko fanaanee def ba asamaan set sëriñ bi ñaanal nu nu yeewee ko ba déwén ak jàmm ñu ngi soññi ñëpp di séntu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة به ازدياد المنة لمخلص معظم فمن يعظم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا فاحترما وعظمي